foofu le soxna Ngoné dañuy wéy ci xibaar yi ak euh, gare de fret bu bees gare de fret yi ab euh, mbir boo xamee ni daal euh, ca avion yi lay nekk nga xamee ni suñu wàccee marchandise fa lañ koy defal Sénégal nag am ci boo xamee ni daal dina jël ba ci téeméer ak juróom fukki tonnes lépp rek ngir fexe ba wàllu légumes yeeg yooyu le suñ koy exporter lépp mën a jaar ci yoon ci loolu dañ ci déglu direct directeur général euh, Sogefret ak conseil technique bu ministère de l'environnement ki euh, tataan ministère de l'équipement rural ki tataan seeni kaddu di Maïmouna Ndiaye li ñuy yaakaar mooy en fait du sax yaakaaruñu ko dañu daf ñu wóor ne bu ñu taxawee ànd secteur privé bi ànd ak état bi euh, fii ak diir bu néew Sénégal dana amaat beneen place boo xam ne bii bu gën am dayo la ci marché fruits légumes du monde societé bi c'est pour contrôler fruits et légumes ak produits yu war a dem bitim réew donc su fekkee ni produits yooyu fii lay jaar transport arien donc ministère dina jàppale si si bépp xeet fekkee peut-être euh, si si xalaat bi orientation ak taxes yi donc ñoom tamit quoi dañoo soxla ay garanti dañoo soxla ay ay taxes parce que ñeneen euh, ñeneen privé qui ne sont mun nañ ñëw di jéem a jaay produits yi